mbokk internautes yi leen wax ni dal leen a seen Dakar People ah tey dañu ngi fi askan min al sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim xalifa rappeur la ak lamiñu askan wi alors di nuyu sénégalais yëpp ñu seetaan di leen nuyu yéen Dakar People jaa jëf bismillah sol euh, vraiment loolu en tant que sénégalais en tant que porteur de voix vraiment ñu ngi koy nakarlu xama vraiment di ko dénoncer alors li Ouzin Keita def noonu mu nekk benn lancé boo xamante ne nii xama góor jigéen yi ñu ngi siy liggéey fii nii si Sénégal xama bëgg yàq suñuy valeur xama alors ñëw Sénégal bëgg fi dooleel góor jigéen te ñun sénégalais ñun xamuñu loolu bokkul suñu aada bokkul suñu diine te duñ ko musa nangu yaa ngi dégg alors jël nañ benn clochard nit ku tekkiwul dara muy Ouzin Keita xam nga financé ko alors di ko defloo di ko waxloo vraiment loolu noonu daal vraiment xam nga métti na quoi métti métti na ñun sénégalais yëpp parce que xam nga toroxal nañ islam toroxal diine toroxal suñuy valeur Sénégal am yoo xamante ni ma la sum waay la responsabilité de l'État est engagée parce que ñiit ñoom nañ fi teg yaa ngi dégg alors lépp luy yoon ak lépp lu jaarul yoon ñoom ñoo ko saytuwaat ku jaarul yoon xam nga ñu teg la ay daan xam xam lu ma la expliqué noonu la demee quoi alors gis nañ ay jamono yee passé am na benn gël des major moom moo soloon tenue sexe bi alors procureur woo ko mais la moo tax procureur woowul Ouzin Keita dugal ko si kaso bi. moom mi sol drapeau góor jigéen. noonu la demee alors mu leer ni ñoom ñëpp ay naafeq nañ duñ ay nitu dëgg te lépp lu ñuy liggéey ak lépp lu ñuy jaarale ma ne la su ma jaarul yoon ñu koy dénoncé te dañ koy wax xoolal suñu baat sa kaw parce que moo neex yàlla comme ni ñu koy waxee la ñun askan bi saa xoola moo wax suñu làmmiñ kenn mënu si dara dëgg na nga leen di wax te yàlla tax. ñoom ñëpp ma la sum waa xoola ñu ngi dooleel góor jigéen yi parce que ay góor jigéen nañ parce que mooy comme ni ma la ko waxee la képp ku jàppale góor jigéen góor jigéen la Macky Sall sax parce que Macky Sall Obama bi muy ñëw Sénégal bi mu koy wax ay affaire pour ngeen signé góor jigéen affaire yooyu da ko ne pour le moment ñu mënuñu accepter loi góor jigéen alors dem nañ ba si biir la biir la biir mu naxante ba dugal loi boobu noonu Sénégal mooy affaire de genre noonu jox ko ministère ay moom mi ngi jàppale góor jigéen yi ba pare dem presse internationale naan on a des homosexuels chez nous di ko baaxoo yaa ngi dégg kon affaire Ouzin Keita yii nii yëpp saa bertuñu parce que ñoom ñu si kaw ñoom seen bopp ay góor jigéen lañ parce que ñoom ñoo yàgg jàppale góor jigéen yi xam lu ma la wax alors di leen wax ne ay Ouzin Keita clochard ay pion yu ndaw nañ di ko wax gars yëpp na xoola yow Ouzin Keita yow boobu moytuwul yow yaay premier góor bi nga xamante ni nii xoola yow nañuy ñëkk Sénégal yow di ko wax sénégalais yëpp foo leen ko gis may la sum waa xoola kañ leen ko def leen ni nga xamante ni yan ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam noonu la santaane pour ñu koy def góor jigéen yi sànni leen ko ay xeer ngeen kañ ko bu ko defee nag su mu waay xoola góor jigéen yi nañ xamante ni nañ xam ne ñun xoola fawuñu fii dëkku xoola islam la dëkku Maulana Cheikh Ibrahim Baye Niass dëkku Cheikh Amadou Bamba dëkku Baye Laay dëkku Sidi Hadji Malick si radiyallahu anhu est-ce que ay dégg noonu la demee di nga ko fi a nangu alors gars yi nag fi mu toll nii ñoom instant ñoom pour ñoom naa quoi ñoom xam nga seen xel dafa gën a dal te dañ gën a am fit gën a osé yaa ngi dégg alors di wax sénégalais yi xoola bur jigéen yi xoola bu leen leen may dara ay genre Ouzin Keita yi foo leen gis xoola kaña leen duma leen tegal leen lu metti parce que ay bur jigéen nañ moo ko tey dama ni la doful jinne jàpp ko dama ne la doful jinne jàpp ko gars bii ni moo yóbbu xoola seen furu fara bii moo yóbbu seen fut lii nañuy jaamu ñoom ñëpp naxaa ñoom ñëpp